ودياتا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اسنيا سبا نيت maa ngi nuyu honorable speaker of the national assembly Fabakary Tombong Jatta be honorable Fabakary Tombong Jatta condona speaker su ministre yi fi nekk maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ministre lu minu be jang ngalu konton kalto tey nag ñu waral bes bi mooy sun candidate yi West Coast Banjul ak KMC. ñi mu benn tamit mi yàlla ko West Coast Banjul KMC. kon suñ candidate yu ñu fi taxawal. yu nga xam ne dañ leen yaakaar. candidate yoo xam ne candidate yu baax la candidate yoo xam ne mun leen a jaay ñu ngi fii ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant. nga na londi moolu minu londi ñu ndula sabaluto nga wala naati jan ka yitandal la ka mbe tentu la ke jayi ke konton ka yitandal la ak mbooleem ñoo xam ne dañ bëggoon a taxaw waaye nag su nekkee bind nañ kenn rek lañ mun a jël waaye ñu yëpp dañ booloo ñëw ànd ak ñi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm si loolu président ko ani minu ye palasol ñini yaa safe ala man ne harje ye tombong adu be jang ngee tentu ngee jayi suñ parti yëpp ñu fi nekk seen executive members yi ñu ngi nuyu ñëpp. na parti wala alfalu executive members ani kafu dugol be ñu bi jàngal konto mboolem ñoo xam ne parti supporters leen ñu ngi support coalition bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant. ñun bee mu parti wala supporters yi ani mi ngi coalition kono ngaalu tantu ngaalu jaay. ñu teewee si meeting bi fii ñu ngi leen di nuyu. dëkk bi nag alkaali bi ñu ngi nuyu alkaali di nuyu imam di nuyu journaliste yi di nuyu seen géwél yi suñ njiiti jigéen yi may a Balde ak jigéenam yëpp ñu leen di nuyu soo gisee mbir mi neexee jigéen ñi ñëw toogaa ñëpp lekk be seen biir suur bi ñu mun a nekk si place bi fii ñu leen di gërëm mbiyata musol batata in loota e tabiroo ke moo ne domooroo ke way bengo ndiyandi man nag ma wax du fi sori bi ko xam naa ne nit ñi sonn nañ nattumoote si yàlla jànkaatu ngaalon ko mool batata bu ma see rek si laa wax gars yi ne nu ma gisee nit ñi sonn nañ ka beri ta dong mole ko ka fo molu batatale xam naa ne depuis buñ nominaté ñu ngi wër si dëkk bi di wone candidate yi alon ko bi biri somandala mol bébé caravano le liggéey bu rek ngeen def liggéey bu mag te liggéey boobu foog naa jar na bu baax a baax a baax donc baale ke nga min maa ngi woon si kër gi waaye ñu ngi maa yónnee nataali Gambie yëpp ñëpp xam nañ ne tey NPP moo nominé tey. bii moo mooy nataaloo jiibee bee yàlla ne ko NPP parti o wala la lu nga mu biiti. waxoon naa jigéen ñi démb amoon naa ñoom meeting bu mag a mag State House. kunun Banjul State House banko musoolu ni ye benn mbaa soto nu njee. waxoon naa ne na ko duma ku mun sa morom duma. naa faa ne ne duma ku mun sa morom duma. duma ku mun sa morom duma. waaye ñun ñoo mën yuri fii ñun ñoo leen mun maren ko tolleŋee noo waaye man nag tey sant naa yàlla bu baax a baax a baax bare te bii nga ala tentu baake lu tax ma wax loolu mu naati na nga ala tentu bu ma nominate 2016 kabiri 2016 loota bu ma waree dëkk bi fii laa ñëw kabiri nga banko yaay naata ma def fi mitin bu rew mu jigma na be mbake jango bengo nyi ngaye woti fanfanke ma nominate 2021 na na fana 2021 ma delu wat fi nga jam fana sey kan kota ke mu jigma wat ay eh, woti kota ke waaye gis naa loolu moo delluwaat tey taari kon murutanga mbii suma chairman i nominate nen 2023 deluwaat fii buva fii kon daf ñoo jik chairman ye nominate nata 2023 jang wo ɓoyen wati waaye nag dina advice sun gars yi bari nappati yo moolu ani soppotal ngal mbaal yamar la mashallah nit ñi génn bi rëy na tooñaa tooñaa kafoo mool siyata bendu ndiraan bi rëy na moolu fintita ñaama waaye nag affaire bi emut foofu bari amanda ñindam maala de buga nañ dañ war a accélérer ñu continuer amandan kirimbaso la bari nga lafa nu nga lafa be ñu saani karta be ñu deenal meyo yu nga xam ne nekkoon niñ fi juróomi at liggéeyuñ dara ñu génnee leen ñu teg foofu meyo yuy liggéey c'est loo carte fay lugo nga carte fay meyo liñ caamaanol mi lu bi yang sanji lulu tambila lay mam fendo ko jangé wutu ngé bonni jang ñu ne sooy taxaw élection bu njëkka ko n'i bɛ karite lɔ la e la lɔ fɔlɔ k'a ɲini ni ñi ñoo laa fal moolu le bɛ kafula ye tanbin de waaye e ye taxawaat ñaareelu yoon bari n'i b'a fula ɲan na i la fula ɲaŋo yow yaay fal sa boppa i faŋo le be fantombo la hakke i la kunun baaroo kan man bu ma taxawee 2016 yéena ma faloon a loo 2016 moolu le yaa tanbin de waaye 2021 suma liggéey moo ma fal bari senun ko 2021 ala baara ñiima bankoo kan walaati su ma liggéeyutoon Gambia ni duñ ma doon delloo foofu ni man doo fo kenum banko moole ite murni la nu jee kon seen meyo yu nga xam ne nekk nañ fe juróomi at allah meyo ni caamaano bi jannu sañilu president Barrow president Barrow ba kajafila di saga gambian yi be nenna di ñu terrorize di ñu threaten ka molu kajafi ka ku ñoom si juróomi at bi yëpp si loolu lañ ne itol sañi luulool be be wala kono noon amul dara luñ doon liggéey fekke jange min ɗo léegi nag kontibo moo jot léegi sa kontibo le siitay ɗin banko mol tema kontibo bi moy wo kontibo wole mo on the 20th of may 2023 bitulungo may karo tili muang 2023 sun chairman yi ak mayo yi nañin chairman ol cdc señi mayo ñolu ngeen festal seen keesi tep tep tep tep tep tep tep aliyel ak festal fandi tep tep tep fay fa tep because wax bi bari na wax bi bari na suñ buggee gars yi noppi fof waa NPP waa coalition members yi ane minu be ñun ñëpp ñu génn nuñ génne woon presidential election fom a ñaama fam fanke de ñu sànni karta ñu win place yi gaay eh, noppi ñun ñu booloo ñu liggéey réew mi sa danga kafu nga banko yirwande liggéey a wax munta anda ko do kuwo ani ndiya motitano te ñun dañ bëgg a liggéey adna <laughs> te ñun dañ bëgg a liggéey aɗum toon laftatɗo kuwalla te ñii dara desewut leen wax moo leen dese ɗum mbiɗuɓe je femma xam nañ ne daanu nañ si présidentiel hano koye ɓoyta président ñinoo fu nekk mu ngi mel ni dañ bëgg a jël suuf tuur si cere bi sa e lafti man futoñi sotono e lafta kam banko ko piƴe biko buguñ pour liggéeya lu liggéey lum fii kaatoy man lafi kam Barrow la waaye nag su ma amee Banjul Ibou Faye bari naña Banjul Ibou Faye soto ma am KMC Bakary Badji. ma Bakary waay Badji soto jàng. Eh, West Coast. my friend solatuma dara dama tëdd di Why do i am council boo xam opposition la council boo xam ne yow soo waxee right ñu ne left kon liggéey du five years bi liggéey dara yéen KMC waru mu ngi na ministre at ñeneen ñeneen ñetti at honorable eh, ministre lem sañ saba ñinan si lum ñett nekk ñetti at ministre fii naa keenota jam ministre di sañ saba yéen gis ngeen lum def fii aliyaaji lay min kato min kejang si sports bi num demee si kanam bala moo ñooto yirwata ñami Gambia musuñoo def African Cup of Nations dem nañ ko taari ko keda fonna fonni keda African Cup of Nations sun junior team bi under pour mu dem World Cup musta am mu ngee dem World Cup under sun volleyball bi ñu nekk African champion woku ne African sun dawkat e jigéen dawkat moo xam ne moo nekk African champion fu mu nekk nii African champion bi jigéen boobu dem na bu nekk di eleven most fastest runner in the world loolu yëpp si tay bi Bakary Badji la am ñu samp ay ministerium fu mu nekk nii Mboyo Fil mu ngi defar foofu studium bu rëy a rëy a rëy a rëy a Independence Studium depuis bu mu taxawee ak tey rénové nañ ko fu mu nekk nii mu ngi ko rénové Independence Studium bi ni ayaa yële in 1983 fo bii saa ngi xëy na kon Bakary Badji test nañ ko ba pare moom ma tammindi le te ñun candidat ñun tànn nag candidat yu baax lañ tànn aɗu donga mool minu londi candidat sooɓe ballem candidat yoo xam ne candidat yu am fayda leen mool ne min yalon ko e kumo fata sidi moom am am na compagnie mu ngi liggéey di ko dee gis QTV programme bu dee am foofu te mol faham programme bo mun ko def jomma mun ko def ak fayda wo programme o ñin kummayata baakele fahamu programme famous la ñeppay seetaan programme wala mi yalon ko programme sobe ba kon waji dafa am fayda liggéey kat la woto du kare do ku laale mo ibu fay nekkere independent studio manager foofu ñaata at ibu fay be sedio mo do sanji jelo be kata ko mi kon ñi yeb dañ proof sen boppa soo nekkee liggéeykat dangay tànn liggéeykat. ñun na liggéey lañ tànn. fu mu nekk nii nag des na si yéen. président Baro ñii la tànn. soo leen sànnilee carte man ngeen sànnil carte. ku génn nga sànni carte président Baro nga sànnil carte. waaye soo leen toogee rek nga ne man taaj naa président Barrow ba pare jeex na. ko naa siita doon ko nga président Barrow kañandi la doon nga banta. affaire bi jeexut foofu. because council bi mooy collect seen tax bi. kaatu ñin councilor wala kana naamoolu kaningul. bu ngeen si council bi lay dem. ka naamool nu joo aka ɗum aran te tax boobu dafa war a dellu si yéen won naamoo ñetti tankolen ka mi nu joo a ñanta seylantol ka loolu nag moo nekkul di am KMC wala ñanta KMC ñoom ñu ngi nekk foofu drapeau UDP lañ fa taxawal ñoom UDP lañ fa nekkal soo ñu amee programme yeloo kola rek ngeen dee gis foofu ñoom kansul bi kansul UDP lañ ko def kansulo yaake UDP la kansulo le kansul bi du kansul Gambia kansulo du mu Gambia la kansulo le kansul bi defuñ ko kansul KMC kansulo min be KMC KMC ko le tam warta demee noonu seen alal moo fa nekk ama njanda taala wala kan alla naafulo le bi ñu ngi leen di wax ne

ani Bakary waay baaji ani Ibou Faye. te dañ proof seen boppa di saajee ma delluwaat si jigéen yi. nga mu na mbaade musol kan. gars yi su ñëwee si ñan ñu ne jigéen yi dañ mer. waaye jigéen yi waay waay bul leen mer waay. seen président Barrow mu ngi fii ku fi nekkoon démb moo fi nekk tey. allah Barrow min be jannun kunun al loo leen soxla ñëw leen man dinaa taxaw ma faj ko mu soolu naa suulata min na al yaa ŋaal faasa looloo tax démb wax naa may na may mun a balde ne wo bégoo to fale bañu nañ ko wax Gambie yëpp fu ñu dem si campagne bi ne wax ne président Barrow mu ne ma ne ko ko nguur gi am na kees boo xam ne mu ngi lebal jigéen ñi man sakundaye aran keesoo soto mim ka di la waaye NPP dina ubbi kees pour jigéen ñi pour lebal leen xaalis pour dimbale leen président baro la NPP e keesoo yele pour musole kalma koy wan ko seen njiiti jigéen bi man man Gambia xam nañ ma léegi lu ma wax rek def ko te man lu ma wax rek yàlla ma dee dimbale dugal man yàlla mooy suma sëriñ man yalla laa yaakaar anda Mansour ta malla be si élection carte fay lu ngo fu ma war a jaar pour dem saani karta ñata tambila na mi ñëw nañ foofu ñu tëj foofu nen yu bare bare bare bare bare ako ah, woo mool naata je ye si sekkili jamalu tey je suma sécurité yi ma ñu wax ma loolu ma ne fompa ngeen ko ba mu set ñu ne fompa nañ ko. ma ne leen na man maa ngeen ñëwa njàpp yëpp toj na. kon man yàlla rek laa yaakaar. man yàlla moo ma isi. kenn xalaatu na man dinaa ñëw taxaw président. waaye suma kaw lal foofu lañ ma fekk ñu ekkati ma foofu. isi ma jox ma doole. ma mun a falu pour nit moo tax bi ma falu. man si yéen laa bokk man grassroot laa. am na mais xam ne kenn mënut a dem seen kër. am na mais yoo xam ne seen staff yi sax xamuñ ko. man na may président bu gën a yomba a si aduna bi yëpp président bu gën a yomba a gis mooy président Barrow. kon man suma bunta yaa ngi ku ma bugg a gis dina ma gis. waaye fu mu nekk nii am ngeen bunte bu weer ne. bunte bi KMC. mooy Bakary Badji. bunte bi Banjul. Ibu Faye. bunte bi K eh, West Coast. Sidi Cissé. kon fu mu nekk nii leer na. NPP ako NPP luñ doore UDP si presidential election bi aye UDP buutelu ñami president karte fayoto dibi mu gambia taxawé ken musta doore nonu UDP tariko kabri gambia lota anene man soto banko kanjal lolo ta suma papa dama ko door mu daanu fum nekk ni dégg naa si julli bi fal nañ ko léegi def nañ ko xalifa général kon suma papa léegi retire na pension na advice bu ma ko advice o nangu na advice bi loolu kontaan naa si trop te man ko congratulate man ko ñaanal tam xalifa ya boobu mu jikko mu gom ne next year suy def ziyaare man mi président Barrow dinaa dem si ziyaar boobu ne bala nta wo siare to dina dem fofu dina ko jox adiya mi nga siare nga adiyo di yalla te mbolam ñu nga xamne domam yi ak sedam yeb dina lañu advice ñu dem fofu diko siare be fana ni namol be fala sa futama nga siare kon suma papa def na lu ko war lolu content na ci trop wo content ta woto baake waaye bëgg nañ mbir mi jeex fii bare pour kuwe ba nga doo kuwa menke présidential mu ne liggéey def ci présidential UDP nge boyndile nge ke life supporting machine mu ne UDP daaneel nañ leen ñu def leen life supporting machine waaye kabiri eh, député carte fe o naata waaye bi ñëwee ci élection yi tànn député iko moo mën naa ka carte o fay ñu ne dafa am ñu ñoo ñu demu sànni carte bari ite me ite me boy rooke naata ite koy tele kam faata ite men boy wañanta faalale mu ne yow mi nga xam ne ni yow yaa daaneel kiñ daanu ko kuma war a a mer na a members ol banko alale adi molla abentelle bulo kono al funti ngana nga carte o fay ngana pati o bambandi nde laftare ñim pati wa e continuer parti bi mu continuer asi ah, continuer fo sañital lulu ñaato yara ñim parti o continuer be ay juróom fukki atti kana mu jiite réew mi wala ñanta kala wayri mbe do ko wala andu mo lafta loolu moo war a am na ñu liggéey te nit ñi dañ bëgg a liggéey allah lafta do ko da ngeen bugg a liggéey allah ta la da ngeen bugg a jàmma a itam ko muñalale maate te da ngeen bugg a kuy muñ di président ala ñimbe sorol fa bari saaga rek ka mool kajafi ka mool la wulu ñañi teela di saaga fe wala la doog woote loolu mooy seen liggéey iko sewoye mbaam allah a kummata ni waye momo ki yitawtale mune mbaam momo kummata yo bari jannaɓe kinna ya ñingol jenuñi mune gis ken ni woto ñilla ɗo komo fitno nin kelo nin mbama nendirol lati kon nak parti bo xam ne ni ñoom mo kan faari won wo ko do ko keno mane nit wo ka tiñaro drone neke kuy mer moom mooy yaqa ñil mo mo lati melo ko konkole be la nit be pare ni ko ko be place ñino drone la ni man sakunda soɗo hani clina iɓe clinal ɓe keñle iɓe le molle kela soñu ute nguur gi hani drive o iɓe le drive o le kela je tam nañ leen ko seet bu baax hani le messenger le messenger le minari messenger suñ leen na raddo ko walla te gom nañ ne am nañ do andun ɓe do ko fanan kelale andun lafta kayro e sabade ñin banko ka dinañ liggéey te bari na candidat rol mel nominate bi waaye suma candidat bi nekk la mba a ko maa ngi leen a wax ne nga menje bi njiginale ka fo koy bele be win la finde bi ngissey ni am na yaakaar bu be ko rin NPP ngol nga noole mais su neexee yàlla NPP mu be mulule te am nañ la support ñi sotale fana te bari na raytele siata waaye su fekkee ni ate fundina e carte o fayi ñune ñu génn ñu sànni la ñun ñoo leen a win wode wona kede ñu élection o men tammita loolu moo xewoon daani la man ci ma génn ye carte fayi ñono la yela carte fayo ɓe la ñuy siloy la facum bi ni mool ñan ñanta doo ko kele albool le dii kan na ngir ñi nga xam ne ñooñu laa soxla pour liggéeyal réew mi dem ñoo nekk ñii andu ñin mu grassroot le ti te ñii nag ñooy liggéey ak nit ñi ci gox ni man siloo solo ka fur président Barrow ma suñu amul yoon ñu ne gis président Barrow ni dara Bakary Badji ya soo demee ci Bakary Badji asira problème o solve dina solve sa problème naa maa solve non su ko mënut a solve Bakary Badji si njéenoo ndenge la problème o solve Bakary Badji jóg si moo gis woto ñimmo big opportunity leti tubabool ɗum ko opportunity comes once munen nak a ah, worsagde ñaarel benn yon harje o kana signa kilinne benn yon la fulla woto ñimmo harje baalati kono li eh, worsag bu rëy la is a big opportunity bunta bu yaatula pour jeb pour npp ye consolider ngannda mool ma ko no ngannda banko ɗo ko wayta añaat pour npp ñu dëgëralat suñ bopp jël suñ si réew mi andunga projet jamal le soto te am naa liggéey bu rëy projet bu rëy banjul nga dooku baale kijee banjul liggéey laa fa def moo beele yaa jaañaala ñëpp ko gisandoo ye sengo men jeey bu ka balanno wola ma ne li nga gis bot lim gis kenn mënu moo moo mooy sengo men jeey bu ko soosoonu ma ne li nga teg sa bot loolu doo koy mën a weddi oto KMC nkool kon waa KMC it's a big opportunity mina mbandi la banjul na ni nga mbandi banjul na doo mina KMC le am ngeen opportunity dem si a. bari pour nga fulfil non. waaye loolu. faale funtile fula ale carte o fay. yéen itam ngeen jox ñu seen carte yi. allah next mayor sike honorable Bakary Badjid. seen next o kadron. su ngeen defee loolu. tooma bee ala tun buloo kono. ko ma seedeel ko ko waaye dégg naa ne ni yudifin golnaal benta mune i ka faalel ko a ah, aldin mu président baro la sofoda han sa tega taame siŋol la mune <laughs> ne yaa nge support président ma moto sange ne président baro i ka la le suuñaa waay mane buñ nax seen xel jëfoo leen seen xel. alte leen de tombo na pour nga doog wokkaal yi. yéen ngeen ma fal jiital ma pour ma liggéeyal. nga siloo dadaal yi. liggéeyal leen yoon. nga kurangu dadaal yi. ma indi kurang. nga jiyool naatiyaal yi. nga ni wo doog wol bee be ñoo la. hani tel men ka o kuma fo yàlla na a président Barrow be o doogu kan. ñoom sax xam nañ ne président Barrow mu ngi liggéey. wo mo nettata je kotenke kono lannalen desel bare ngaalone ko sérékunda way xam naa ne tmc sérékunda birkama banjul birkama banjul baliŋoti a amu tool amu tool ni manque mankunda lo e si baliŋo keno je e si tiyo sene e si ñoo sene mun nga pay gerte dugub mbo xamaalo bari ŋaalo jam balinti jage be sono kela daame amu tool fo wala ya kende mbe keso yella ye moo tax dinañ ubbi kees aran kees pour jigéen wo kees mo pour na parti muso sobotal dong pour ñi a xam ne ñoo nekk ci parti bi ñu dimbale leen hani muso le hani kewle tiko sidi ñaawo ñaa muso dro wala boko do sudla moo xam su góor téléphone muso sa jigéen ñi ñoo moom ndimbal loolu ni na women minister ani women mobilizer na eh, isla nga ko do provide nga don to ko la le business oke nañ ko organize ñu jaarale ko ci women mobilizer wari pour ngeen dimbale seen boppa e sadio ko allah haajol mum menti also suula aldo alto tobotono li seen soxla ngeen matal ko ci réew bari contente baake ñin campagne o kono ɗum ndaɓe ñin campagne o kono le siɗi ni ɓe mitin bakala birkama invite minaje mina campagne o kele bakary baji so ame mitin ɓuure o mama gitna ñaw fof ma mbali ibu faye bugana so ame rali bañun nga so suma sista bi mu ne moom mooy buri Banjul waaye dinaa ko wax ne tey man maay buri Banjul maay buri Gambia fu mu nekk ni affaire bi jeex na duñ bàyyi dara mu sedda ñu yàppi golo su seddee dafay soof nañ leen door ñu daanu jeexala ñoom kon continué nañ ngeen liggéey amul dara lu di ragal ñun ñooy ruling parti bi bu ragal dara man maa ngi seen gannaaw amul dara lu di ragal yow nga nekk opposition ragaloo man ma nekk ruling parti ma ragal ah kon xanaa ma ñàkk a fayda bu leen fayda waaye kana kunta yanga yena ofa gay karta alena na kartel mo dafa leer ofa karta kon lan mo xew gëna leen ngeen tani karta oto mu nekk ta nga karte fay suñ buggee ñu am jàmm si réew mi fii ñu liggéey réew mi fii nin lafta nga kayro so do banko nga ñaata suñ jàmm réew mi mooy NPP ak coalition members yi ñoo yóbbu réew mi si kanam mu NPP patriotique kon gëna leen ak doole alfinti a ñaama amu delu gaaw nen accéléré xanaa accéléré ɗo ngay kaf tey nu ngeen génnee si nomination bi génnee noonu si sani carte bi o keta ñamin morfindiɗa ñamin carte fay lugaji gars buñ ma yoonee nataal yi gaado hewli ka min dama tiitoon sax ma ne ah ñi dee ñu ngi maa challenge fu mu nekk nii ka silaleen nun ko ha ah, ñin bu ma gisee KMC man sax tiit naa waaye Bakary Badji jërë ngeen jëf continuer leen affaire bi day wax bee ñu compte karga jërë ngeen jëf jërë kontaan leen ñu ngi leen di ziar di leen gërëm asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatulah ala baraka baaki ala baraka salatu ala nabi dua fatiha salatu ala nabi bismillah